ak njabootu Serigne Touba gi mu toogal yépp bu ma ñëwaatee dellusi ci li mu wax ci Gana nag damay seede tuuti rek ci moom xam na man xam naa Serigne Modou Makhtar ma daggal paasu Màkka 87 Gana mi fekk na ma ca kër ga ma di ko yónni mu di ma toppatoo ci ndigalul waajuru sëñ Bas wi kon tey gëm googee mu gëmoon ba sëñ Bas wax ko sama bisu maam samay ndijaay soxla kenn ku ne xam emploi du temps mu ñëw li ci sëñ bas wax doy na gànna yal na la sëriñ Cheikh Awa Balla Fay mbooloo mi président de la république dafay ñëw loolu moo tax sëriñ bas ni gànna yàkkamti nga waaye tout honneur tout seigneur li nga waxtaan nga xam ni gàmm organisé def na nuy gàmm ba tey waaye nag quelques minutes yu ñu toog fii ñëpp concentré kenn waxul ñu déglu gëj naa am am na ñu bari ñu ko amul lu mu gàtt gàtt gàmm na kon tey le représentant du président de la république délégué représenté fi tous les ministres su weer wi dee mu def rapport politique relaté gàmmook Touba Fall mu xeex ñu ni nañ ko jox kàddu balaa dem Serigne Bass dafa xam digganteem ak Macky Sall président de la république xam cëru président de la république looloo tax mu ni Ibrahima Ndaw mii nga xam ni macha allah ci sous-préfet yi nga xam ne am nañ ci ñoom yaakaar ndax fuñ ko yóbbu rek émergence lañ fa bëgg mu def ko fa ànd nag ak le maire de la commune de Mewane Bara Ndiaye directeur général de la maison de presse ñu nommé ko ko conseil des ministres mu ànd ak délégation sous-préfet ànd ak délégation moom la ñuy jox kàddu ci turu gouverneur de la région de Thiès le préfet du département de Tivaouane ba ci ministre de l'intérieur mi nga xam ni boo lëgee bu defee rapport ñoom ñoo koy jot xanaa Serigne Bass dana ci yokk rek nii courant bi di def tey ak di ko defaat dana ñaan monsieur le sous-préfet Ibrahima Ndaw di nit ku baax bis bi ñu bokk ko ci yi nga xam ne danañu ko def CDD ñaan yàlla bu bis bu ñu jàppatee gàmmu gi balaa ñëw ñu tenir CDD boo xam ni daañ ci wax Sénélec daañ ci wax ndox daañ ci wax santé daañ ci wax hygiène daañ ci wax lépp ndax ca kaw la ñu programme woon lii coupure courant tax nu wàcc ñëw nii waaye bu ñu sañoon bu ñuy teeru le délégué du président de la république représentant de tous les ministres ci fu baax fu mel neneen lañ koy teeru noo ngi ndokkeel nag sëriñ Sidi Mbàkke mu sëñ Maxtaar moom la ma sëñ Bass di wax léegi xalifaam ñëw na Serigne Gana Messere Serigne ñëw na Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Modou Makhtar Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Balla moo yegg si léegi Balla sax ñu ngi lay dalal noo ngi ndokkeel nag jëwriñ ci ndigalu kilifaam mamadan yal na yàlla guddal sa fan bàyyi laak sa njabootu baay gi Modou Mbacke mii nga xam ne bëggut a sol mubb solu dàll nekk jëwriñu kër gi ñëpp bëgg a delloo alaaji Ndaama Fall njukkal aw ngeen yoon ma nag yàlla na ngeen yegg Baye Ndaama su nekkoon turfiste ñëpp nekk tey turfiste bu defoon leneen ñëpp def leneen waaye yar na leen ci yar yar na leen ci teggin yar na leen ci ngor yar na leen ci taalibi lu mu fi bàyyi woon def ngeen ko ñaar Baye Jaaje Mbay maa ngi lay gërëm ci présentation bi waaye dama bëggoon balaa maa commencé sant yàlla bu baax a baax bam ñu mayee ñu tase fii deux mille dix neuf deux mille vingt ñëw am nu mu demee moom ci mbaaxam mu may ñu deux mille vingt et un ñu tasewaat fi te diggante bi am lu bari lu fi kon waa ngi naan alhamdulilahi rabil alamin bam ñu mayee ñu fekkee waat guddi gi boroom xam-xam yi jagleel ne moo gën ci guddi yi di nuyoo nag di jiital ci nuyoo bi sëñ Bass Xadim Awa Mbàkke Balla ñu ngi lay nuyu di lay jox sa wàccuwaay di jël nuyoo bi teg ko sa loxo nga wasaareel ñu ko ci sëtu sëñ Tuubaa yi ñu fi fekk yëpp Mbàkke Balla ku ci ne ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di ci teg yeneen kilifa diine yi ñu fi fekk ak sunu imaam Aliou mi jógee ndànk te sunu xalifa ba sëñ Mohamed di ko yónnee nuyoo suma góor gi wax na ko léegi dama fi ñëw dans le cadre d'une représentation délégué du président de la République représentant de chaque chacun des ministres Monsieur le maire, je crois que certains font la confusion en disant représentant de tous les ministres. Mais ce n'est pas tous les ministres, c'est chacun des ministres. ñëw fii ci sumay turu kilifa nag ndax danay faral di wax bu ma yoree micro ne amuñ sañ-sañu dem fenn wax fa sunu waxu bopp luñ fa wax ka ñu yónni ci turam lañ koy def ci jëmmam la ñuy taxawee réeré wuñ mbir ne conseil des ministres ñaari ay bés yi weesu moom son excellence le président de la république Macky Sall moo jël décision wax képp kuy autorité administrative na ko taxawal ci gàmmu gi fépp fuñ nar a tàntalee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam que nañ ci taxaw daf ci suñ loxo ba mu yemb ñu nag ci suñu wàllu bopp ñu doon ci jéem suñ bés bi bés bii de man fonk naa ko gannaaw boromam mais man moom laa am ñetti at laa fi dafa gum ci arrondissement bi mais bii lañ ma jagalal bu Tiwaawoon oote woon tey préfet Tiwaawoon mooy dem Tiwaawoon mais sous préfet mais waan Touba Fall la jëm si kon man bii man mooy suma gàmm ma jox ko dayoo ba mu war a am nag balaa ma sori ma ne woon bu ma ñëwee ci barke sun góor gi nga xam ne moom lañ fi ñàkk barki dem boo bàyyi ndaama Mamadou Moustapha Mamadou Fall ne woon sunu lépp di ñaan yàlla sunu borom mu xare ko àjjana ca àjjana ya gën a kawe ba mu fekki sëriñam ba sëñ Touba Xaadimu Rasuul di ciy tegit sunu rakk ji maam Cheikh moom démb la yàggul ñu tase tasewaat ba keroog bi ñuy denc suñu góor gi man maa ngi fàttaliku maa ngi toog ci wetam bi ma ci gën a yéem di sëñ aatu moom it bañ ko tegaloon maag moom ñoo dendoon kon bu ñu amee seetlu tuuti xam ne ñii ñuy wax te gënuñ leen fenn yàlla daf la ko neex bañ jiituñu ñu mën a waajal sunuy boppu ñu nit defaraat toogaay bi yal na leen yàlla xare àjjana ci àjjanaam yu gën a kawe ñoom ñii nga xam ne jiitu nañ ñu di nuyu sëñ Gana Messere moom itam ci njàngale mu rëy mim ñu defal ñun suñu gàmm moo fi ne nii boo jógoon sëñ bi ñaanal dañuy wëlbateeku dem ñibbi tëdd xam ne gàmm nañ parce que le sens de cette nuit ak ki tax guddi gi am moom nga ñu fi firil te amul tànt booy dem ci Sénégal tey ñu wax fa lu wuuteeg lii nga wax ak njàng layum sëñ Touba mi nga ko àndaleel di koy démontrer à suffisance léegi nag bi may ñëwit dama ànd effectivement ak délégation ànd ak monsieur le maire de la commune de Mewane Bara Ndiaye directeur général de la maison de la presse mu ànd ak son conseil municipal am na ci ay conseils yu takk yu àndal ak suma adjoint di Cheikh Tidiane Sow di moom it koo xam ne ñi ngi ko fiy doog a indi parce que toog naa fi ñeenti weer ku ma ëpp doole jël ka ma amoon waaye ma muñ ko ba kilifa gi indil ma keneen mu jàpp ci liggéey bi ñu ànd ci muy Cheikh Tidiane Sow ànd ak Malick Sow ànd ak Malick Diop ànd ak Alioune Sow ñoom ñëpp ñuy ay agent de l' yu nekk ca sous préfecture ba gannaaw loolu sëriñ bi ni ñu président waxe woon ñu taxaw ci man ak chef de village sëriñ euh, Cheikh mbay ñëw nañ taxaw ci bés bi lañ mën jéem nañ ko ci te teniruñ CLD mais xat-xat ak yéexoon a jóg moo tax ma ne ko nañ ko dab-dabal tous les chefs de service départementaux yi nga xam ne impliqué wu nañ ci préparation man ci suma wàllu bopp bind na tàppe tiré signé jox ko au chef de service yi pour ku ci nekk taxaw ci moo xam gendarmerie la moo xam les différentes entreprises de la place moo xam service d'hygiène sapeur pompier ainsi de suite képp kuy service service locaux nag wax dëgg yàlla dafa xaw a néewee doole ci arrondissement du ma chef de service départemental ay quelques fonctionnaires la am ña ca des ampliation dem na ci préfet département pour moom fu suma loxo eggul mu eggali ko fa joxe instruction ba tey ci suba foog naa ba may oote Modou Male di suma xarit ñu ne ma yeewoogul mais nee naa ko adjudant chef pour pompier nee na seen oto mënul a dugg su fekkee ne pare ngeen agent yaa ngi toog ñu ngi ñëw de gendarmerie ba may ñëw c'était la même chose c'est pour dire monsieur mbay que effectivement cette doléance danañ ko jël en charge parce que lii wax dëgg yàlla dañ ñetti at yi ma fekkee man romb na sax CLD dafa fekk ne nag autorité administrative bu ñëwee dañ naan ko événement religieux yi par catégories la fam yoo xam ne au niveau local yii war a egg au niveau départemental yii au niveau régional yii au niveau national mais sous préfet baak gouverneur rek ci yem ku ci génn ci turu président de la république ngay wax waaye bés bi man de ci suma wàllu bopp am na dayo goo xam ne bu ma fi jógee dinaa rendre contre le préfet du département xamal ko ne ko niveau ba mu ne woon jaadu nañ ñu essayer seet un niveau supérieur ba moom ci boppam mu kii am na lu ma ci jot a wax ak moom nag yaakaar naa ne bu ñu yàlla mayee gàmm gi weesu bañ dallu tuuti invité nañ ko te Moodu wax na ma ko wax naa ko ko bërki démb dana waaj ñu ñëw fi parce que daf di gan taalibe murit la est-ce que bokkuloon ci Hizbut Tarqiyyah ma nga juddoo ko kii jàng daaraam pare di macha allah xale bu am ñam ma bëgg leen ko indil teg ko seeni loxo ngeen ñaanal ko ñu teete ko parce que ndaw la man pratiqué naa ko parce que à mon retour de mission diplomatique maak moom on a séjourné pendant dix mois au ministère de l'intérieur avant que ñuy demandoor décret bi ma yóbbu Parcelles Assainies comme sous-préfet moo ko yóbbu comme adjoint gouverneur à Kédougou puis à Kaffrine préfet de Malem Hodar muy tool ya après préfet de Ranérou c'est de Ranérou qu'il est venu aujourd'hui à Tivaouane il s'appelle Mamadou Gueye donc loolu da nekk jafe-jafe courant bi mu wax du fekkoon dañ ma ko wax ma ne dama koo dégg waaye dama ko vivre tey te fañ toog ca kër Moodu man jël naa suma téléphone oo kiñ naan Mamadou Ndiaye Kémas di cadre à la Sénélec xamal ko ne ko le problème je ne suis technicien mais je crois que c'est dû à l'explosion exponentielle du village macha allah ni mu yokkoo moo tax mu jaadu Senelec ñëw fi daf une étude sérieuse pour seet courant bi parce que fañ ko bàyyi woon weesu na ko fi ñu toll te xam naa ne li ko téye ba heure bi mooy jafe-jafe yi ñu fi amoon 2019 ba le ministre Makhtar mujj fi intervenir pour ñu régler affaire il nous faut impérativement à Touba un post électrique pour mu mën a dem lii wax naa ko Ndiaye Kemas léegi il était en réunion avec le président Alelo à Tivaouane te yaakaar naa ne dinañ jóg taxaw te suma rapport dana ko mën a confirmer sëñ bi maa ngi doon guddal mais di fàttali rek ne gannaaw solo bés bi fi président de la république teg njaboot gi aussi laa bëgg ñenn ci ñi fi toog suñ ko xamuloon wala ñu koy naatable ñun xamal nañ ko suñ bopp et la preuve mooy keroog ba suñu way jur génnee àdduna ba muy jaale ji géejawaay je crois que toute la presse nationale a l'a montré pour wane diggante bi président de la république am ak cette famille de vieux ndama ak sëriñ Bassirou mii nga xam ne mi ngi fi toog loolu tax lépp lu luñ ci def dañ doon jéem bu matul nañ ñu ko jéggal ñu xam ne nit a matul soobe yàlla on tirera les conséquences et les conclusions de cela pour que les prochaines éditions soient plus beaucoup beaucoup plus éclatantes bañ am ci ndam lu euh, jiitu lu romb suñu njort bañ am ci ngërëmu sëriñ bi am ci ngërëmu yàlla ak yonent sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ni moo tax ñëw fi maa leen di gërëm di leen sant di la ñaan sëñ bi boo jëlee parole nga ñaanal réew mi ñaanal président de la république wala dolli ko ñaanal ndax xam naa ne jógu leen ci xam naa fi président teg njabootu sëriñ Touba. ñaanal leen ko ci réew mi gannaaw ba ñu jógee ci nawet bi lépp luñ fi récolté nañ ko muurloo mais ñaan aussi pour réew mi pour un climat apaisé lii ñu jëm suba gannaaw suba di lu moy luy jongante élection bañ koy def Sénégal 1800 la ñu ñaan yàlla def élection tey dimanche résultat yi génn ci dimanche altine nit ñi xëy doxi seen soxla ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk am na loo xam ne daf fee xëjul am na loo xam ne mosu fee am ñaanuñ ko yàlla waaye ci barke mag ñu baax ni yàlla nañu yàlla dimbale ba fa daan jaar ci sedd ak dal yàlla dimbale ñu ba egg fa donc ci turu gouverneur la région Mamadou Moustapha Ndaw le préfet du département Mamadou Gueye ci laa ñëwoon feddale si kóllëre bokk ak yéen passé cette nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa lépp lu ciy ngënal yàlla nañu ko yàlla defal defal te may ñu ñu fekkee ay déwéni déwén yu bëri maa ngi daaneel foofu di yóbbante nuyoo itam sunu kilifa gu baax sëñ Basiru euh, xalif général des des Mourides yàlla na yokk leer euh, wéram yàlla wéral ay cëram yàlla bàyyil ñu ko fi suñ kanam ba mu yàgg-yàgg pour njëriñu diine ji njëriñu Sénégal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf xam nga Youssou Diop dafa wax ni ginnaaw administration mooy wax continuité rawate na nag ñoom ak lépp loo xam ni ci sëriñ Touba yaakaar bis bii nga xam ni lépp daañ delluwaat ci ñoom boo waxee sëriñaatu jaañ dafa dellu ci ñoom nga wax maam Cheikh Issa dafa dellu ci ñoom kon nag yeble na fi lépp loo xam ni teraanga la tàmbalee ko ci gëléem ba ci ganaar def délégation boo xam ni ñu ngi nii teew xam naa ni jombul daa ñu jël kàddu waxoon na ma sax ni naa leen waxal waaye nag ñu ñëw waxal ko seen bopp ndax teraanga joojee sëriñ soo nga nale bàyyi ko ci njaboot sëñ Moustapha la ànd ak forte délégation boo xam ni ñoom itam sëñ Abdou Razak ak sëñ Abdou Raha ñoom ñëpp ñu àndante ak Serigne Bassirou ak Serigne Maam Cheikh Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Bassirou Khoudia Dieng Serigne Bassirou Khoudia moomee la ñu duppee Serigne Bassirou Khadimawo ba mii. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp euh, di jiital ci nuyoo bi njabootu Serigne Touba gi nga xam ni. teew nañ fi te kilifteef ak kóllëre rekk tax ñu teew fi seen dite ki nga xam ni moo sooke bis bi di ku baax ki nga xam ni démb gi bërki dé moo ko daan di sëriñ ndàmm kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Mbàkke di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ci turu ñi nga xam ne ñoom la àndal euh, di di santit ñi nga xam ni euh, ñoom ñooy famille bi nga xam ni ñoo fi nekkal tey jii sëriñ Ndama Fall di ay doomam di ay sëtam di ay mbokkam ñoom ñëpp ñu taxaw taxawaay bu rafet ah di rek dikk balaa may tàmbali di leen jottali nuyoog sëriñ Yuusu moom mi nga xam ne tey jii moom la sëriñ bi teg mu wuutu ki nga xam ni mooy sunu jëriñ ji fi nekkoon di sëriñ Aatu Euh, sëriñ Atou it nag gannaaw bis bi dañ ko jegleel du ma wax mukk te waxuma ci moom tuuti lu gàtt sax ndax euh, li taxoon mu taxoog famille bii di famille sëriñ Ndaamu ci sëriñ Dame ci boppam la woon wajuram la woon dëgg la ndax dafa àndoon ak wajuram muy lu yàgg waaye nag ni mu mel ci yoon mel ko ci sëriñ tubaa moom sëriñ mu gimmi yàlla dimbali ko ba mu bindoo noonee góor gi bindu bindoo loolee tax ba moom mu taxoon ko def ko wajuram di ko xoolee jàppee ko ko ba moo tax bis bii diirub li mu fi nekk ñun ñi nga xam ne ñoo àndandoo moom depuis université ba léegi xam na ni mosu ko wute mu ñoroon ko lool mu ci daan wane yéeneem fi ko sëñ bit fi sëñ boobu fi mu ko toll ak njaboot gi fi mu ko toll man mii yebal na ma ba tey ma ma ànd fekk ay kilifa di profité ci loolu ngir xamal leen ni ñii ma àndal ñëpp ku ci nekk jëwriñ la sëriñ Bamba Samb mi moom ak sëriñ Atou université la woon ba léegi tubaa booba ay jàng dañuy jàng rek waaye léegi dem na ba ñoom ñaari ñëpp ku ci nekk am ay sët te ànd boobu leen képp ko lu muy sëriñ tubaa kii Louga la jóge kii ngay mexe donc soo soo soo leen di apprécier ngay wax ni dans le Sénégal di des royaumes bokk yi sax fi fi nekkoon waaye Serigne Touba moo leen kii toog sama wet Serigne Lamine Fall moom it jëriñ ju mag ku xam histoire xëy xam na ko c'est un grand responsable nekk daara ju ñuy wax daara Touba kii nekk sama sa sama càmmoñ. di sëriñ Abdou Fall moom it di jëriñ yu mag féete daari Touba ba mu àndi sëriñ atu yàgg na lool tey jii ñoom ñoo séq sëriñ Youssou mu jëlee ñu yëpp yabal leen fii kon délégation bi kii di sa di sëñ Bay Ngiraan moom it di kilifa gu mag di jëwriñ moom it mu mu yabal ko mu ànd ak ñun kon loolu dafay wane rek ni moom ci boppam moom ci boppam su dul woon gàmmu gee nga xam ni sëriñ bi dafay exiger mu toog ci wetam ci biir Daaru Salaam moom moo fi ñëwul boppam waaye ngi waaye waaye waaye mu leer leen ni ñii mu fi envoyé ñii juróom kenn ku mu fi envoyé ku nekk xam leen Hizbut Tarqiyyah gépp ñëw nañu te duma ma guddal waaye euh, damay leeralaat rek diggante leeralaat sëriñ Ndan ak ñi mu àndal ñëpp mu xam ni lii ba ci kanam sëriñ Tuubaa lay doon incha allah sëriñ Yuusu sa sa jaatu nekk waaye sëriñ Yuusu mi nga xam ni moo fi nekk tey jii yéen a jëm ci am yéen a ci am du ma ne faaxoon na bu sëriñ waaye jàngal nag ko xam na ko incha allah bis bi ngeen ko doon defee ba kudu koro dina dina ñëw fekk si leen foofu incha allah su ngeen ko defee ba kudu koro ñun dinañ ñëw fekk si leen foofu ndax lépp waaw kon. Euh, ñuy du nu nopp du du nu noppi su euh, du kàddu mukk te it euh, waxu it ci jàmbaar ji fi nekkoon xam mu ñoo àndoon liggéey bi muy sëriñ Issa te ngeen xam yéen ñëpp di ay magam di ay rakam xam ne amuloon lu dul daara ji amuloon daara ji cérémonie bi ñu def Touba nga xam ne dañ koy def di set safar muy cérémonie bu bu rëy boo xam ne ñëpp dañ koy fekkee neexal yan fay yan fay joxe mu jëm ci jàmbaar yi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy meetal ci bis ba ngir seen taxawaay ci at mi su sëriñ bi wéyee di sëriñ Muntaxa li mu ci indi di ko joxe ci wàllu yére moom ñëpp xam ne taxawaayam ci loolu ñun ñëpp mën nañ ko seere kon yaakaar naa ni euh, ki taxoon ñuy ànd muy sëriñ bi ki taxoon ñu jàpp famille bi muy sëriñ bi moom rek rek rek incha allah moo leen teg suñu kanam te na leen leer ni nu leen jàppoon benn jàpp nañ ko fukk tey ji incha allah euh, yaakaar naa ni euh, su ma waxee lii euh, day day doon toq ci biir géej ci li ci li ñu war wax lépp waaye nag gannaaw ñëpp dañ ko seq te it muy loo xam ni jox nañu honneur bii pour ñu wax faw ñu wax rek waaye wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke suñu baay bii li mu wax su ci yemoon képp képp képp képp mën nañ ci am incha allah baax ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal nag di ñaanal nag bu baax a baax sëriñ Ndamo ak sëñ Issa ak mboolem koo xam ni way dawlu nga ñu ngi ñaan cheikhul xaddim ci ji bis bii ji guddi gii nga xam ne mooy guddi gi nuy màggale dikkub rasulullah sa bi ko suuf ñu ngi ñaan mu mu mu xaare leen ajjana te yóbbu leen ci àddina ji gën kaw ci àddina ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf bokki jullit yi duma guddal waaye bis bii li muy tedd tedd jëwriñi kër gi yàlla daa def mu tànn comme na ko way juróom daa defe bis at mu ne mu darajaale ko kilifa diine goo xam ni day bëgg nit ñi da ca xool pour def ko référence ren nag ki mu tànn dama cee bokk am lu ma ci xam te làmbatuwuma ko ndax 1965 la ma sama baay yóbbu ndax nga ma jébbalu ci moom bàyyi ne ko kii gone la mun ko ku amul cuuj doo am ginaar sëñ Moustapha ko wax sama wayjur ak i samay mag ak yëpp dañoo ànd fii te sëñ Modou Faty ni man dee ñu ma sedd mun ko kii fi ne waaye gone la 1965 loolu du tay de moom mii ñu dara jaale bis bi nag diggam ak alaaji ndaama li may wax ñaari baat su ma ko waxee ñëpp dee xam ne wér na ndax dadaa wax sëriñ Mamor xalifa ma Massamba bii fi ne ne ko ndakaaru de dama lay ñaan bu fanaan mënta ñàkk na ñuy dem ci suñu kër bàyyi alsaan kenn du am bàyyi di taxawaalu ci këri jàmbur loolu mën naa am ñu bari xàmmewu ko waaye dégguma ko ci mbedd de kon kër Baye Alassane yàgg na nekk kërug taalibe yàgg na nekk kërug wàccukaay te moom meññi alaaji ndaama alaaji ndaama meññi gone yi rek aw ma kàddu pour di wax damay présenté ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel bis bi muy njabootu kër ma sàmba gi teew ci jitaay bi nag nga xam ne tey jii moom ñoom moom kër dëkk bi waaye ñoom moom bis bi ndax damay wax ni képp ku ma dégg ngay wax ci sëñ sàmba ba jeexal te tuddoo Touba Fall mu xeex am na ñu la gën a mën sëñ Massamba néegu bi yàlla bii ñuy yéem moo ñëw ni yendoog sëñ Ousseynou ba mu tisbaar jot mu ko ana jàkka ji maam Ousseynou ne ah, mu ne nañ fi def jàkka julli fu mu dëkk day am jàkk ci ngoon gi la mag ñi daal di wuti yent say xat daal di fetañ yent laaj wutal ko sàppi loolu alaaji ndaa maa ko fi jële ginnaaw yàlla ci 1985 ba mu nekk jàkka ji yéeme ci tund wi ba tey Modou Fall yokk ko def ko jumaa kere ba mu koy yokk moo ma woolu baa ñëw mun ma lii dama ko bëgg a soppi def ko néegub yàlla bu gën a yaatu muy jumaa ma ngi nii moom a ko wax kon njabootu sëñ ma sàmba gi bu fekkee waa kër sëñ Modou Faty Khary daa teew waa kër di magi sëñ Moustapha waa kër sëñ Moustapha sëriñ Oyus Mbàkke ngi nii teew teewal fi magam sëriñ Ahma ak sëriñ Seexuna feggoog rakkam sëriñ Abdou Rassakh Mbacke fekk fi magam sëriñ Xaadim Mbacke moom sëñ Abdou Baaxe mii ilimaan yi dëkk bi nga xam ni moom indiw fi boppam alaaji ndaama moo ko damaane sëñ Abdou Baaxe mu ne tekk ba moom diir mu ne ko boole naa la Xaadim yóbbu ko réccoogun ci dara te yàlla bon réccu njaboot sëñ Modou Faty Khary gi sëriñ Abdou Aziz a ngi nii toog dafee miin sëriñ Abdou Latif a ngi nii toog musuma gis sëñ Xaadim ñëw ci guddi gi te feggoowul ak moom sëriñ Abdou Xabir mi sëñ Moustapha tudde caatum ma Massamba mu ngi nii toog feggoog seexu na sëñ Abdou Sax rakkam kon mel na ni bés bi sëriñ Mamor ma leen yebal nga xay moo jëkk indi pono ci dëkk bii pono nun ñëpp nu taxaw ci ginnaaw nee ba di diglu ak watiiru fas na sëñ Moustapha bi muy door ñëw fas lay war moom fu dem ñu delloo fas woo jox ko waneen ba ker kero nga xamee ni bëgg naa dem otom paan ñu ti ko taxi di ko laaj téeméeri dërëm fii gëtirat daa frank laa yóg mal fu naar ba ni man sama kër bàyyi laa ne kenn du ma taxi nañ ma taalal ataay waaye sëñ Bay Faal rakk bàyyil saan mi jur ndaama bi ñu taalee ataay ji yoroo ngi nii booba la ko naar di tàggat muy door a ñëw ci daara ji moom biñ leen seen a ñëw comme xobu garab wuy wuy gelaw nii la ñuy def di daw ñu ëgsee rek ñu taaloote bi mu tàkk loolu dama koo dund fekke ko kon ñoom ñañ jox bis bi tuddee nañ ko waaju baax tuddee nañ ko waaju gëm sëñ Touba waaye tudde nañ ko ku ñime kër maam Alsaan Fall ndax dañu maam moo rakkam ndakaaru de mënuñu koo bàyyi waaye bu ci fanaan defee moom buñ fanaan ci ay ay jàmbur ne ñuy dem ci suñu kër baay kenn doom kër baay di fanaan ci mbedd kon nañ ma jéggal loolu ma saraa te nga xam ni biñ ma joxee kàddu gi ci suñu ndigalul kilifa nga xam ne tey jii moo fi toogee jotaayub Seex Masamba muy sëriñ maam Mor Anta Sali Mbàkke di suñu wayjur kenn ku ne xam ne ne bis bii lu ko ñor la ca lum yitteewoo la ba tax na bi nga xamee ne yëkkati nañ ko pour jagleel ko sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy magam ji fii fa jóge bu yàggul bi ñu ñëwee laaj ko ci ndigal mu rafetlu ko lool ànd ceeg mbégte ànd teeg loo xam ne yéene ju rëy rëy mu yabal ñu fi ci suñu kaatu kilifa di sëriñ Ahmadou Mbakke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba boole ne ko mag di suñ kilifa di suñ xarit muy sëriñ Uwaysu moo nekk nee tey kaddu yii may wax mën naa ne bu ñoo ñëpp jàllee ci diggante sëriñ Maam ak sëriñ Ahmadou moom mais moo ko moom waaye nag dañoo wax na ndigal moom jëfe rek sëriñ bi moo ñu ko digal laa tafxalu say an bi xayri isnin fal isnu sartun fi xaboo lisaani bokk na ci jëfandikoo ndigal dana tax ñu nangu sa jëf loolu moo tawa tawa suñ toogaay fii ba tey ñu ànd ko ki bokk yoo xam ne bis bii taxaw nañ fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg léegi wax nañ ko bu ñu tuddee Touba tudd tudd ma Massamba kenn mënta dem ci tuddoo Serigne Abdoul Baqi yi ku ne xam na li nga xam ne dëkk bii moom la ko fi yàlla joxoon doy na sëkk rek ci liñ mu jaw léegi na imaam bi nga xam ne moo nekk fii ci dëkk bi moo ko tànn teg ko fi te loo mën a jiitu jiitu yaakaar naa imaam kenn du ko jiitu ndax mooy ne ci gët kanamu mbooloo mi kon sëriñ xaadim ñu ngi lay siyaare bu baax a baax mën nañoo wax ne fii ku fi ñëw yaa koy dalal ndax yoonu murit noonu la baaxoo rawatina kër ma Massamba barab bii day barabu ma Massamba muy lu yàgga yàgg yàgg waaye lépp it di nekk lu rafet loo xam ne kenn ku ci ne xam na diggante maam yi way jur yi ba ci ñun ñii kenn ku ci ne rafetal rek moo la tax a jóg muy loo xam ne lu am solo la ni ma tuddee sëriñ xaadim ndax njabootu sëñ Masamba gépp benn sëriñ Modou Faty Khary it ku ne xam na ko ci lépp loo xam ne aju na ci kër Cheikh Masamba muy koo xam ne ku bari woon lu muy lijjanti ak lu mu bokk ci rafetal ak lépp ba tax na njàmbur ak lu ci jëm ak fépp foo xam ne fi mel na barab yi foofa dem fekk fa mbooloo kon loolu di la ñuy jógee di siyaare sëñ Abdou Latif sëñ Abdou Aziz bi nga xam ne mooy magam ak sëñ Abdou Latif nga xam ne ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi diine yi buñ ko waxee nag mën nañ koo tuddee ñëpp lislaam rek ndax tey bisub lislaam la ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko fii léegi mooy ki nga xam ne mooy jiitu ca ku jiitu moo la jiitu ca du mujj mukk ca moo gën ñëpp loolu nag li tax ñu mën koo seede mooy kenn ku ci ne ci ñun am nga bis waaye fii di Touba Fall ñoom yaakaar naa jàppuñu benn bis bu dul bis yonante bi sallallahu alayhi wasallam kon mën na ne buñ doon dàkk mën nañ na jam nañ buñ doon wut lu ñuy am mën nañ na am nañ ndax ku wut ci keru yonante bi danga am ca loolu it yaatal gi ko yaatal ba kenn ku ci ne man cee gis boppam loolu lu am solo la ndax kat sëriñ bi mësta woote lenn lu dul ak bennoo ca lii bokk na ci bennoo ndax lu ñëpp bokk rek mooy wane ne bennoo la kenn moomu ko ñëpp ci tolloo daraja loolu mooy li sëriñ bi bëggoon ndax kat moom bi mu jógee di wax ne fu mu jëm ak lan moo ko tax a jóg lu leer la wax te ko bind ci mbindum boppam zahara lii anna ihtizaman bil kitab wa bil hadis mustafa huwa sawa nee na awmal lenn lu may def lu dul feeñal yonente bi sallallahu alayhi ak topp sunnam kon bis bii mun ko jëlee dubbe ko sëriñ Moustapha mu dugg ci biir loolu li ma doon wax nag bu ngeen doon dàkk jam ngeen laminal Moustapha yi ni al bi sallallahu alayhi wasallam ñu wëlbatikuwaat dugalaat ci kon mën nañ leen a wax na tey jii may waxee yow bu doon dàkk jam nañ ca it bi fi sëñ bi fàddoog léegi gisaguma bis buñ ko dugal bis gisagu ma bis mu ko dugal ndax yàggagut kon bu fekkee ne dañ jax sens wala boog bëgg lu baax ak di ko wut mën nañ na am ngeen ko sëñ Mahamadan loolu na ngeen xam ne sëñ Mamboor a ngi leen koy seereel bu baax a baax ndax amut lu magam kon bu ngeen ko fabee dugal ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom sëñ bi mën nañ na raw na te am na yaakaar ci moom ca yàggut bu baax léegi loolu nag moom ci boppam li tax mu jagoo ko dina si ne ci am xisab bu gàtt buñ ciy leeral ndax sëriñ Moustapha bi nga xamee ne gane ne àdduna ñu bari jàpp nañ ne dañ koo tuddee keneen dañ koo tuddee keneen ci liñ mën a wet li suñuy nopp sëriñ ma sàmba lañ wax ne ko koo ko tudde mu daal di bind fop kayit ñu jox ko kayit mu fop xalima bind walla xadd karam naa bani aadama wa amal naahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min a tayibaati wa faddal naa moom ala kasirin mi man xalaq naa tafdilan tafdilan kooku laat ga ca kaw ca la bind tur nga tudde naa ko ki nga xam ne yàlla moo ko bind pour teral ci doomu aadama kon bu ñëwaatee ñu tudde ko yonente bi sallallahu alayhi wa mu faddu yàggagul matagul ñetti weer ñoom ñii ñu jóg dugal ko ci biiru Moustapha tey ñun suñu xel dal na defal ngeen ñu loo xam ne suñu xol sedd na ci lool amuñu seenu fay loolu nag mi ngi tàmbalee suñu kilifa di sëñ Maam Moor mi nga xam ne moo moo wuutu sëriñ bi cañ bokk lépp wàcc ci sëriñ Ahmadou ba ci sëñ Oysu mi ak mbooleem ko sëriñ Moussa Diour waaye nag duñ daaneel mukk ca waxuñu li nga xam ne mooy waa kër sëriñ Baara waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine ku ne xam na ne Kajoor ak lu ci aju Cheikh Mouhamadou Lamine moo ko moom kon sëriñ Bas fii dafiy def ci ñun loo xam ne li ñu fi li ñu war ca waruñu fi lam fi man mënuñu ko fi bis bi li mu ciy def ñu ngi ko ci sant bu baax ndax dana ko organiser bokk kook ñoom sañ dan ak sañ muudu ba def ci ñun ñii nga xam ne tey jii ñoo waroon taxaw bis bi lim leen ci defal mënuñu ko ci loolu kon fawuñu sant ko ca gërëm ko ndax gis nañ ne noppalu organisation bi ci lépp mu koy def nit nag bu la fekkee saw nit man loo ci mënul faaw nga sant ko ca gërëm ko sëñ Bass ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan ca wéral la ca kattanal la ca bàyyi la ak sa sago ba ñii nga xam ne suñ ñoom ñii di suñuy mag nii nga leen taxawoo te lépp nga teg ko ci kóllëre rek boo amoon ak seen baay ba muy loo xam ne alaaji jaaja wax na ko léegi ndax nit moom bu toyewee na la waxal ma loolu moo gën a wér mu faddu ñu naan moo la doon waxaloo ndax xam nañ fi mu la tegoon ca loolu it sa kóllëre la ak moom nga boole sa lépp ku ne xam na ne bis bi xat na am na wóllëre yoo bari yoo séqal kenn ku ci ne fu ne ña la fay war a xaar waaye sa temps bépp da nga koy fopp sacrifier ko fii loolu ñun suñ jëmmi bopp ci kër sëñ ma sàmba ñu ngi la ciy sant ci di la ci gërëm ci sa taxawaay ak sa mat ak sa yittewoo bis bi ca loolu it xam naa ne du du ñàkk man alaaji ma wax na ma lu bari ci diggam ak euh, sëñ Baara wax na lu baree bari ci moom man fekk naa ko ca Sodida moom lu ma ci wax muy wér kon loolu asaar amul kon kon boo taxawee nii ànd ak sarakam sëñ maam Cheikh moom laa xar wax kon loolu du kii man du kiimaan ndax dangaa topp rek tànk yi tànki maam yi loolu kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ca di la ci sant ca di la gërëm di gërëm mbooleem ñi nga xam ñoo fi nekk ndax bis bi li ma ko waxee rek bis bisub lislaam la bu buñ ko fobee suñu way jur dugalaat ko ci biir Moustapha mi nga xam ne ci la ñëpp dugg kon loolu ñun sant nañ yàlla ca xam ne nit mënuñu mësuñoo defal lu ëpp lii nit mësuñoo defal lu ëpp kon alaa sëñ sëñ Mahamadan yaa njaboot gi ñu ngi leen di sant bu baax ca di leen gërëm ñàkk nag ñu fàttaliku ci teewaay yi ndax kenn ku ci ne xam na ne nit lu mu mën a def ci àdduna sëñ Tuubaa wax na ko nee na ñi nga xam ne ñoo fàddu waar xabul asiya lil amwaati raddun ila dunia maal xayaati walaw suway xatan faqat li yaxlama in xafalo saalihan tarfu min xafalo nit ku ci ne lam bëgg tey jii boo ko andisiwaatoon ña dem barsàq ñu dellu siwaat jamono ba liggéey fi dara rek lu leen mën a jariñ fan nekk tey kon bu fekkee ne tey jii may wax yow am na ñu daan taxaw bis bi ku ci mel ne sunu jarbaat sëriñ maam Cheikh ku ne xam na pas-pasam néega ni daawut fekk mu sol mbubb wala mu def leen day baagante di dem ak ñëw kon bu yàlla dogalee sunu borom jiital ko sunu xel yëpp danañ dem ci ñu ngi ñaan yàlla yàlla xëpp ko njéggal ca yërëm ko def ko muy dawal lislaam ca njaboot gi mu fi bàyyit sama borom taxawu leen ndax yàlla rek moo mën a taxaw ca kum taxaw dootoo manqué dootoo wéet mukk ci àdduna kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di leen wax na daal mbég nañ mbooleem ko aju ci Seex Masàmba rawatina kër sëñ Moustapha ndax daal lii moom lu rëy ci ñun la moo tax bi ñuy ñëw bàyyiwun kenn sëñ Oysu ak sëñ Abdou Xabir man mii ma ñëw fekk ñoo dakaar lañ jóge ñëw ma fekk leen fi ca bi ma ñëwee sëñ Ahmad dafa bëggoon kenn bañ a des ci kër ga ndax nit moom bu la lebalee loo xam ne mënoo ko fa sa jëmm rek nga ko mën a fay kon daal ñu ngi sant bu baax ci di gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Balaye sa waaw di waxit dëkk bi moom moom lu fi waay def sëriñ Touba nga ko defal du man ne sax sëñ ma sëñ Touba laay wax ndax dëkk bi ci ndigalul sëriñ Touba lañ ko sant sëriñ sàmba li ko daan booleeg ñii day am ñuy kuy ñëw ñëw ci moom lu ci moom maam Alassane sa maam Ousseynou ñoom ñëpp sëriñ bi moo ko booleeg ma Massamba damay wax ne nit ki sëriñ Touba booleem du raaf mukk ci àdduna nit lu mën a wutal boppam mën naa xëy ñàkk waaye lépp lu la sëriñ bi wutal mën ko bañ a ñàkk kon njaboot gii di fi ñëw préfet nga wax ne lépp lu ngeen def ci dëkk bii moog lu ngeen def Touba ñooyam loolu man wér na ma léegi laay wax sañ moo Modou di ko tooñ na ko palaa dëkk bii sëñ woy si li may wax dana ko xool bu ko xoolaatee dana ko xam xelam sax xëy na jëmu ci woon waaye moog daaru karim xarfan bi xarfin xarfan bi xarfin boo boo ko xoolee ci zahir ak ci baatin loolu nag wane na ne kon ki moom daaru karim moom moom fii rek te loolu lépp bi ndax lépp sanc yëpp foo gis dara ne fa sëriñ baa ko fa def sëñ tubaa ko fa def foo fa dara ne rek sëñ sëñ tubaa ko fa def kon dëkk bii na ñëpp xam ne mooy tuubaa mooy daaru karim ndax ci ndigalu sëñ tubaa rek lañ ko sanc kon lépp lu ngeen wax ne diggee ngeen ko fi fexe leen ko def bu ngeen ko defee ak yokkute rek la leen di jural ñu ngi leen di sant bu baax ci di la gërëm man daaw gis nañ la daaw jéeg gis nañ la fi xam nañ ne li nga wax dëgg la ci yow ñor na la lool ndax bis bu set da nga yemoon fa ngay tàmbalee waat kon sant bi xaw naa doy waar waaye nag teewut it gis nañ ne pas-pas bi moom yóbbaale na sant bi ñu ngi lay sant bu baax ca di la gërëm ca xam ne daal bu ngeen bëggee seenu yokkute ak ngërëmul sëriñ bi saye boo lépp lu ngeen war a def ci dëkk bi ngeen def ko ndax baatin am làmboona yu rëy rëy rëy rëy yu rëy rëy ndax damay fàttali ko rek yàggul dara bi alaaji ndaa ma wàccee sëñ Mahamadan bi woo ma wax ma wax ko ma wax ko sëriñ bi sëriñ bi ma ne ko lu ñu wax loo yaakaa ne foofa fuy barabam mu ne ma foofa loolu la ma ci tegal na ma foofa na ma foofa nii la def ñaari baaraam na ma foofa ak fii nii benn wala wax kon du ma kon li may wax loolu dëggal na ko kon waaw fii la mujj gàmmoo sëñ Massamba fii la mujj gàmmoo kon li may wax loolu kon bu ci yokkoo mu nga xam ne li may wax nekk na li ma wax rek sëriñ bi moo tas fépp daj fépp matale fépp fu dara nekkin mu def ko fa kon saye boobu bu ngeen bu ngeen gaawee profito lu ngeen bëgg Touba ca bëggoon ko fa di ko fa wuti bu ngeen ko wutee fii am ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon Serigne Bass mii moo leen tontu keroog bi nga xamee ne am nañu un mois président Macky Sall def délégation ñëw di jaale si Serigne Bass mii moo ko tontu keroog tey jii itam loolu yi nga xam ni njabootu sëñ Massamba wax na ko muy am kóllëre di leen defal ci seenub tool loo xam ne xam na ni ñoo ko bokk ndax xarit ak wëllëre yàlla na ko yàlla fay kon Serigne Bass xam naa ki nga xam ne moo di délégué monsieur le président de la république kàddu yi nga xam ne danga ko saafonteeg moom ba ñu demaat nag ca bâche ba door a waxaat nag ak dëkk bi ak leneen li nga xam ne moo des sëñ ma sàmba néewul sëñ wa sëynu ñëwal féeteeg man sëñ wa sëynoo dem fekk sëñ tubaa ca jolof bi ñu nuyoo toog ñetti fan yàlla kenn santu leen dara ci liggéey baa jëf baa ñu xool gi sëñ ma sàmba léeg-léeg rek mu dugg ci sëriñ bi di ko sëñ barlu mu ko woo ñu dem ni diwéeg sëñ ma sàmba ne ko ñun dañ fay ñëw di ay ndaw war a tool ci yëngatu nu am fi ñetti fan te kenn defloo wunu kenn bàyyiloo wunu nu bëgg nga waxal na ko ku tedd ki ba sëñ ma sàmba gisee ak magam ji tedd ja ba mu ko ko waxee mu ne ko bu ñu jullee tàkkusaan nañu ñëw ñu jul tàkkusaan nañu ànd ñëw mu ni bañ waxaatee la ñu waxee mu ni ma sàmba mu ni mbàkke mu ni boole naa la ñoom di leen digal te di leen wattandilu ko kon sëñ Abdou Rassakh li nga wax am nga foo ko teg duma mag waaye dootuma ko sañatuma saraa su ma ko doon def sax sañatuma ko te daa fee fekk mag ñi nga xam ni dañ doon dund ak sëñ Ousseynou fekk fi sëñ Tuubaa ndax Baye Mbaye Fall rek sëñ Alaaji ma nee na sëñ Tuubaa saa bu naree génn ku ñuy wax sëñ Balla Coro laxasaay gi bunt boo gis taxaw fa rek bu naree génn ci bunt boobu lay génne monsieur Ibrahima dama la ñaan yaa tiim ñëpp ndax yow dénkuñu la commune après arrondissement lañu la dénk trois cent et quelques villages am ngay kilifa te it jëwriñ sañ na ni diw mii de jàmbaar la ci tool yi waaye mat naa dimbali te xeebuñu sa kàddu te yaakaar nañ la ci ni nga nekk xaritu yàlla dañ la koy ñaan nga bokk ci ñi am taarix ci Touba Fall ndax monsieur le maire moom doom la fi la dëkk boole boppam ci dëkk bi ñimeel boppam askan wi ba kenn nattable wu ko kon ndaw gouverneur dajale département bi yëpp yónnee ko président de la république waaye relation personnelle am na te buñ ca sukkandikoo ndax wax nañoo ak président ba mu ni dana fi ñëw keroog ba mu see Serigne Bassirou mii wax na ko Modou Mbacke wax na ko ba mu jëlee kàddu gi wax na ko Touba Fall mu xeex fan la féete yoon wi ak courant bi président promettre na dana fi ñëw yàlla na ko calendrier yem permettre ba mu mën fee ñëw kon nag léegi euh, danoo amaat beneen bu ñu war a dem fee ca gàmmu ga te sëriñ Abdou Razak li nga xam ni moom la sëriñ Bassirou war na tontu monsieur le préfet wax na ko ba noppi Alioune Mbaye àggale na leen li ci des dañuy jox sëriñ Xaadim imam danaa wax bis bu nekk nii Alioune Mbaye wax na ko léegi sëriñ bi wax na ko tànnul boppam tànnuñu ko sëriñ bee ko tànn Alaaji Ndaa ba bëgg imam mu ni ko kii doy na imam na nga xam ni département Kébémer noonu la ñu defee ku fa soxla imaam dañ naan demal kër Xaadim Awa Ba peex ak imaam yi wër koñ baag yëpp njaboot sëñ Xaadim Awa Ba la tànn mu doon seen imaam fii it njaboot sëñ Masamba la ñu tànn mu doon imaam wax naab sëriñ yomb na ku sëriñ bi jur nga dib sëriñ xam nga lan moo jafe ilimaan lu tax da man a jàng ba noppi maandu teg ca sëriñ Xaadim jàng na maandu na sëñ bi ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi ziyaarewaat bokk yëpp di laat bokki jullit yépp tey ñaan ki jeexalu dara te talewul dara Mawlana tabaraka wa taala di ko ñaane ci daraje yi boroom guddi gi nga xam ne moo waral lépp sunu boroom nangul nu li nu fi xëyee yendoo ko fi ba ci jataay bi te muy alxuraan ak euh, di Cheikhul Xadim ak salawaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ak yu nemme ak yu demee noonu lu mel ne teraanga yi ñu fi yendoo defal doomu adama yi ak dalal gi ak sargal gi ak màggal gi lépp ay yiw la lépp ay jëf yu baax la yàlla na sunu boroom nangu moom mi mën a nangu jëf te defal nu ci tuyaaba jiñ ciy séenu fay nu ci saxlu lu njor yàlla mën na ko yàlla na ko def ci darajey sayiduna rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ñu maase jàng fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقفى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم من ارتاب في كون المقفى محمدي رسولا وعبدا للكريم المكرم